kii nag di Pape Ndiaga Yade di joué fële ca France ca championnat France ci club bu Metz moom mii nag di Pape Ndiaga Yade nekk na jour boo xamante ne nii joueur bu talentueux te moom mii nag xam ngeen ni choisir na déjà li nga xamante ne nii moo di dëkkam di Sénégal moom mii nag di Pape Ndiaga Yade nee naa leen jour bu talentueux parce que boo leen demee seetaan li nga xamante ne nii moo di ay. vidéo am di ngeen gis li ma leen di wax parce que moom mii nag bëgg na li nga xamante ne nii moo di réewam bii nii di Sénégal ba gis nañ ni suñu gaynde yi ginnaaw bi nga xamante ne nii remporté nañ li nga xamante ne nii moo di Coupe d'Afrique moom nag ñëw na ñëw na seet si nga xamante ne nii moo di suñu ñaari joueurs yi moo di kii di Bamba ak Pape Matar Sarr ba kii di Pape Matar Sarr na ko li nga xamante ne nii moo di. trophéem maanaam médaille d'or bi mu fotowoo ak mu fotowu ak moom gis ngeen photo bii ni moom la ak Bamba Dieng ak kii di Pape Matar Sarr ba nee naa leen kii di Pape Matar Sarr aal na ko li nga xamante ne ni moo di médaille d'or bi ba mu fotowoo ak mom moom mii nag ba ginnaaw loolee sax mi ngi remercier kii ni di Pape Matar Sarr ak kii ni di Bamba Dieng kon daal nañu jàpp ni kii ni di Pape Ndiaga Yade moom mi di joué fële ci club bu Metz moom mi nga xamante ne nii ginnaaw bi nga xamante ne nii Aliou Cissé gëm nañ dina ko convoqué moom mii nag dina joué dina joué pour réewam bii nii di Sénégal gars yi nee naa leen kii nii joueur bu talentueux la nag moom nag post bi mi joué mi ngi nekk li nga xamante ne nii moo di latéral moom latéral gauche la pied fort am la moom ma ngay joué fële ci club bu Metz donc tey lii laa leen indiloon ci xibaar di leen wax ngeen abonné ci chaîne bi.